d'accord balaa ngay jàll ma laal benn Papa Moussa mooy <laughs> ci euh, euh, Ousmane Sonko mi euh, manifeste soutien ci peuple palestinien bi mhm. mu wax ci benn mot mu ne il temps ñu isole Israël su koy wax on se rappelle ay jamono fii sax même ñi daan def manifestation ngir soutenir nos peuples nos frères palestiniens mhm. dañ leen wax ni nañu boycotter sax produit yi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ca Israël tey mu wax ba duut baaraam le monde musulman ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ci ñàkk yëkkati seen kàddu xëy na pour préserver seeni intérêt moom bu ko waxee ci moment bi certes dina impacte oui mais bu nee ñu isolé ko est-ce dafay bokk ci loolu mooy lépp lu laal ci Israël ñu teg ko na le man loolu laa mës a gëm parce que je considère Israël comme euh, un occupant illégal je le considère comme un colonisateur voire même parfois comme une organisation terroriste parce mm. que euh, des bébés qui sont au biberon sax. Hmm. Euh, Israël da leen di da leen di exécuter euh, te ku ne xam na li xew ci hmm. zone boobu noonu. Hmm. c'est-à-dire euh, je pense que néew na wala bu dee sax ab na un état par une résolution des Nations Unies Israël. Euh, teg ci mu nekk ci contexte boo xamante ne am ay réew yu ko ngemb ngemb ba mu ne ngodd muy dal ci ay yeneen yi nit ci loo xamante ne communauté internationale bi parfois je me demande pour mooy que ça pour mooy mm-hmm. que ça mais il crée une indignation internationale alors que personne ne dit rien ci li Israël di def nii ana les yi taxaw di wax waxu droit de l'homme chaque jour ou bien les palestiniens ñoom amuñu ay droit mm-hmm. alors euh, tey non seulement nga occuper illégalement territoire u di avancer à grands pas di rey moment boobu noonu mais euh, le monde arabe surtout les dirigeants arabes effectivement il a raison de le dire parce que tey jii nii puissance bi nekk ci zone boobu noonu militaire Égypte hmm. mais il s'affirme comme allié wu Israël c'est simple euh, Mohamed Morsi frère musulman dafa gagné les élections démocratiquement ñu def ko coup d'état de manière illégale États-Unis dénoncé wul France dénoncé wul Al-Sisi ñëw toog ñu commencé di mater les frères musulmans. tëj leen kaas. leen rey lu ne. or ñi nga xamante ne ñoom ñooy résister euh, en Palestine benn démembrement des frères musulmans la muy Hamas. donc kon ñoom ils s'inscrivent dans la logique de combattre Hamas jusqu'à maintenant combattre le peuple palestinien. Arabie Saoudite n'en parlons pas. incroyable. parce que ñooñu seen intéret seen euh, la protection. euh, des régimes saoudiens ñëpp xam nañ ne c'est Israël donc seen yoon nekkatu ci pratiquement y a Iran bu nekk ci zone bi euh, ak benn benn benn benn euh, croissant chiite boo xamante ne ñoom ñoo fa taxaw loolu moom mooy la vérité looloo tax tey jii nii Iran taxawaay bi mu am ci xolu musulman yëpp mu mu mu mu mu am solo parce que moom mooy taxaw face à l'oppression bi nga xamante ne ñu ngi koy teg ñu ngi koy teg ci kaw Palestine même Liban moo leen ciy ëpp euh, taxawaay avec les Hezbollah. wala voilà, même Afrique du Sud. boo jëlee quand même. mais Sénégal sax da daan am taxawaay bu am. chaque jour ci Palestine chaque jour gis ko ci président Senghor ba ci. yëpp euh, yëpp président Diouf Abdoulaye Wade. président Macky Sall bi mu ñëwee moo am yeneen relation yoo xamante ne doxal na ko. suñu diggante ak. moo moo tax moo tax mu mel ni. taxawaayu premier ministre Ousmane Sonko am solo taxawaayam dafa am solo. il a remplacé kii ci à la primature kan la defal passation de service Sidiki ah, Kaba moom moo demoon mur de lamentation ak mbaxanaam googa <laughs> ñoo ngi fàttaliku loolu taxaw di julli julli juif c'est ça la vérité donc woy euh, Marka ak Bakka yaa ngi fàttaliku c'est-à-dire gars yi <laughs> en fait dañu dañu dañu dañu mel ni ñu ragal Israël quoi bon ils sont très bien organisés dëgg la ay ay ay ay liggéeykat lañ ay ay ay ay voilà loolu moo dëgg la mais ñoo téye économie téye xaalis waaw te ñun dëkk yi africain yi ci ëpp dañoo soxla koppar peut ba fay jóge mais looloo lool looloo tax ndax looloo tax ñu ci bëri duñu nangoo jël position dëgg la dëgg la loolu moom moo tax ragal lu mu sat waaw ragal Mossad aussi mhm. parce que c'est service secret aussi mooy loolu dañuy dugg sa caaya def fa lu leen neex <laughs> waaw loolu moom loolu loolu mais donc il faut du courage pour pour pour pour pour avoir la posture du premier ministre Ousmane Sonko c'est du courage mhm. te loolu noonu taxawaay boobu noonu ci ci Sénégal loolu moom moo taxawaay ba mu war a am mhm. alors donc euh, je pense fii la fii lay amee de fii la daan amee euh, ngay gis ay weeru koor imaam yi di dem ambassade Israël di jëli suukaru koor ak ay xaru tabaski hmm. alors donc léegi lañ jaar suuf pour que nag ñu arrêté seen yii nii pour que ñu ñu ñu ñu ñu ñu euh, maanaam am benn obligation humanitaire ci kaw euh, peuple palestinien bi ñuy euh, opprimé soutenu par les États-Unis oui soutenu par l'OTAN oui il faut que ñu isole leen qu'ils arrêtent quoi parce que euh, France mooy toll fi muy toog di taxer ay organisation de terroristes frères musulmans Hamas yeneen mais fàtte kii nga xamante ne tey jii chaque jour mu ngi def dafay bombardement foofu noonu le soutien que le Sénégal apporte au peuple palestinien man dama jàpp ne soutien la boo xamante ne dafa war a fës. Hmm. comme ni ko premier ministre bi defee taxawaayu askanu Sénégal aspiration askanu Sénégal yàgg nañ fii di dem di koy manifester. Sidi Lamine Niass rahimullah alxut mm-hmm. donc mu ngi am te loolu dina bàyyi waaw chaque gàmm am na journée boo xam moom la ñu jagle alxut duñu ko bàyyi te ndeysaan ndem si yàlla euh, Serigne Mamoun Niass boo ko daan taxawee tey ay doomam la ñooy bàyyi Mamoun taxawaay war yu rek la woon ca Medina bàyyi dina am bés bu ñu jagleel Palestine Ansar Din Maulana Cheikh Ibrahim ak c'est-à-dire loolu dafa nekk loo xamante ne obligation la bépp régime bu fi war a mën a nekk parce que aspiration wu peuple sénégalais bi la mhm. alors donc je salue encore une fois le courage du premier ministre dans ce siège là parce que lii moom premier ministre mosu koo sañ encore manifestation bi waaw premier ministre mësut a sañ wax waxee nu nu mel jëmale Israël c'est une première ñoom dañ doon xaar peut-être seen ndigalu euh, président waaye tey bu ñu gisee premier ministre c'est comme si gis nañ Bassirou Diomaye waaw loolu la looloo tax ma ne la c'est une première et ça donne encore à la rupture un contenu spectaculaire bi mujj ca Gambie ñu ngi fa woon même le président de la République Bassirou Diomaye bi mu waxee sa clair la ligne du Sénégal mooy Palestine mooy euh, maanaam solution boo xam à deux états. Mm-hmm. daf ko confirmer waxaat comme li Ousmane Sonko ko wax ne dañu war a élever la voix dem même au delà te bi mu koy wax mu ngi ko waxee woon ci aussi nga xam te ne la mu dajale ci. Euh, monde musulman euh, takku na pour yow li Ousmane Sonko def ni barki Dembo Ndiaye leader politique yi nekk fii nekkee ci opposition bi aussi dañu war a la voix pour yow. mun je c'est une position c'est une position du mm-hmm. je respecte. Mm. Euh, je pense que bi mooy deuxième manifestation de soutien au peuple palestinien. bu njëkk bi defe naa def nañ ko au mois de je pense au mois de mai je ne sais plus euh, fii euh, devant la RTS. oui je me souviens. oui voilà une gestion pour que le peuple palestinien puisse être quand même euh, respecté ñu am aussi droit à un territoire à un pays souverain c'est vrai que par Moussa lu mu wax ni c'est exact dama xamul lan la ñuy ragal Israël. Hmm. moom laa wax sànq ma ne. non non yaa ngi ko doon junj sànq ne seen renseignement. jërëjëf Mossad la ça bul nekk un homme d'état bokk munoo nekk un homme d'état par di ragal yenn affaire c'est pas possible c'est vrai que ñoom États-Unis moom c'est leen seen intérêt liy topp di